dem ba gis boppam parce que léegi peut-être jëkkër ëppatu ko soltu mu xamal que carrément que léegi ma yor ma ma yor ma demal sama rek ne ko may damaa bëgg ñu tas léegi ku jigéen kii ku góor ki itam wax ak parents yi wax ak ñëpp expliqué leen affaire mu moom ay parent wax a wax a wax ba ñëpp wax nañu ay parents ñi ko mayoon ay papa ak yaayam tout ay frères wax mooy ne daal day tas quoi day tas rek tas lay def mhm. waaw affaire bi noonu la demee quoi doy na waar mu di ay mbir yoo xam ne euh, ñaaw na loolu waaye yu mel noonu Moussa bu fekkee ni am na yéen ñi nga xamante ne ay doomi senegal leen mbaa yéen a ngi jege mm. tamit ñi nga xam ne ñoo ngi foofu mm-hmm. non affaire affaire bi affaire bi day day métti trop parce que yow da ngay xool kii bi ñu koy fekk Sénégal yorul dara amul dara ah, muy woon sax am cent francs par jour dëkk sax daka daan lijjanti hmm. comprendre mais kii nga bàyyi ko fa jékki-jékki lijjanti ay kayitam andi ko fii hmm. utal ko kayit utal ko kayit ba pare jox ko liggéey yóbbu ko yow ñu jël ko directeur boole ko directeur fi ngay liggéey ki directeur nga ko boole ñu jël ko embauché ko direct mooy liggéey xam nga yóbbu papa mag defaraat seen kër xam nga dem ba te kooku sol ëppatul ëppatul sol daf mën naa ne sax ku jigéen ki ëpp sol lay ku góor ci te ku góor yi mooy mooy dugg mooy mooy dem marché mooy dugg mooy def waaw mooy dugg mooy dem marché mooy dugg mooy indi saa yu kooku bëggee togg ku jigéen ku góor ki mooy dem dugg dana ngaa jëndal ma nangam jëndal ma nangam jëndal ma góor ki mooy dem supermarché dugg ñëw andi ko mu togg mhm. waaw ne eh, doy na waar trop Euh, te tamit. Euh, mu dema dema dem ba dema dema dem ba léegi mu wax carrément ko wóor que ne mën naa demal sama bopp mën naa demal sama bopp yaakaar sama góor. maanaam daa dem góor moo baax waaw. comprendre mm-hmm. léegi jékki-jékki rek ñaan ko baat naka nag defoo ma dara ñu koy ñaan baat dina ko defoo ma dara. man maa la bëggatul bëggatuma sëy yow. loolu la ko wax carrément. maa la bëggatul. maa la bëggatul bëggatuma sëy yow. mootuma tëdd yow doon ma tëdd yow benn lal. ndax la mu doon séntu si moom euh, dem na ba ëpp ko ko. voilà dem na ba am ba mënal boppam dañu embauché nañu ko am na am na liggéey bu assuré te liggéey boobu mu assuré jëkk bi ma ko wutal boo ko boolee directeur hôtel bi mu jënd mhm. waaw te am na yeneen cas tamit yu fi am yoo xam ne yeneen tamit yoo xam ne fii man ñi ma man gis bokk fii ñu andi seen jabar ñu ñu fi andi seen jabar fii ah mhm. mën naa wax quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix pour cent yi jigéen ñi tas nañu eh. quatre-vingt-dix pour cent yi Mhm. di tas nañu ñoo xam dama leen xam nii diw ak diw xam xam leen xam seen kër xam lépp te ni jabar bàyyi nañu leen. maanaam couple yi foofu bu dee jamono ji fukk la huit euh, hmm. yi dem nañ. voilà huit yi dem nañu. doy na waar waaw. ñi fi des di sëy ñi mu fi gis ñuy sëy mooy ñi xam ne góor ñi fi leen fekk takk leen fii. Mhm. doy na waar. comprendre mhm. mooy ñi xamee ni ñi fiy sëy actuellement mooy kii xam ne ku góor ki daa daa xamante ku góor ki fii si dëkk bi ku góor ki andiwu ko dañoo xamante fii fekk ku euh, fekk ku góor ki fekk ku jigéen ku jigéen kay liggéey mm-hmm. ñu ñu gisante bëggante takkante sëy yooyu moom dëgër na moom dëgër yooyu day dëgër day dëgër parce que xamul tax ku nekk yaakaar si dara parce que ku nekk muy gis moroom fekk na muy liggéey mbëggeel moo fa dox dëgg la mm-hmm. voilà affaire loolu affaire fiiraange tamit naa ko affaire fiiraange yi mm-hmm. parce que man fiiraange man boo moo ne ku Moodu Moodu bi dina fiira tànn jabar jabaram euh, noonu parce que fii Moodu Moodu avant muy indi jabar ji fii takk naka ba bàyyi ko un an deux ans Sénégal doo ko andi bi ko bàyyi xam nga fii la ko Sénégal fekkoon fiiraange kese la. kon du ko takk bàyyi ko Sénégal lu dëgg. dëgg la. kon nag ku jigéen bu ñëwee ba fii ku góor ki di ko fiire am na lu tax mu di ko fiire am na lu mu gis loo xam ne daaw ko gis moom du dëgg. dëgg la mm-hmm. loolu laa yaakaar ne loolu moo tax lu muy andi fiiraange. Mm-hmm. voilà jërëjëf euh, Moussa. Mhm. Euh, dañuy mhm. taxaw euh, si li nga xamante ne sama yaay moo di Moussa wax na ko léegi léegi. mooy mhm. histoire boo xamante ne daw na yaram trop. te tamit c'est dommage ndax ki nga xamante ne dala wóolu jëlee la Sénégal ba Europe. kooku bu sa ñoon dara du leen boole bu ñoon yéen ñaar ba abadan waaye nga jékki-jékki war ko. war lay war la ko war sax daf ko war amul war lay nuru da ko war ku jigéen ki dafa war ko góor ki. te gis nga sëy yooyu noonu. tax na ñu bari takkatuñu fii jabar bàyyi leen fi dem jële leen fi yóbbu <laughs> ñu bari dañu préféré takk foofu jabar su fekkente ni yow gis nga sa morom di dund lu mel noonu ku tey tey fi tey ku mel ni Moussa <laughs> du dem di takk jabar di ko fi bàyyi bu ba mu neex ko mu jël ko yóbbu <laughs> déedéet parce que gis na ni sëy yi dëgër te dëgër këcc moo yi ñu bëgganteel foofu ngay liggéey ma may liggéey nga gis ma bëgg ma ma gis la bëgg la ñu takkante da nga may téye parce que da maa bëgg kii nga xamante ni moo fi jógee dem nag dafa lal dafa lal wor mhm. lal tamit baadoo la ñàkk conseil loolu moo waral li nga xamante ni mooy muy am mu mu am man noonu laa ko gisee voilà mhm. euh, Ndiaye Diatta naka nga gisee li nga xamante ne moo di intervention Moussa bi mu di intervention bu am solo macha allah euh, Moussa ñu ngi lay nuyu di la siyaar di suñu soppee mhm. di jëmm ju yàlla baaxal moom ak euh, soxnaam ñoom ñëpp. ñu ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay di kontaan. musaa ni ma ko waxee noonu la amee. xam nga wax naa la que dès le nee na nee naa la loolu bari na fa. Mhm. wax na tamit ci question ci fiiraange bi. Mhm. nee na bu demee bay fiire rek am na lu ca am na lu ma gis. Mhm. am na lu ma gis. waaye dama waxoon ne toujours yow nit ki boo yërndoo rek dangay ngay gis. gis nga ormal ak téye ak jaamu yàlla ci sëy dafa baax. dafa baax. ba tax na gis nga sëy 98 pour cent yëpp ci li mu wax nag mu ne ndaw soosu dafa na waa ji defoo ma dara mm-hmm. maa bëgg sëy bi yem fi bëggatuma la bëggatuma la mm-hmm. loolu tout sa début bi la commencé ca début la mm-hmm. booy takk da ngay takk ku la bëgg ku am ci yow tefeel mais am na xaalis maa ngi itali xale bu ma neex laay takk ah maa ngi Espagne ku ma neex laay takk loolu dafay andi toujours ay sooxe bu ñëwee bu ko boo ko andee nag foofu mais loolu dafay am sax. gis nga xam ne tamit dundoog moom ndax yomb na nga xam jikkoom. mais doo ko xam parce que ak moom la parce que moom dund leen. Mhm. mais ki la jural njaboot fii ci Sénégal ngeen xamante bu yàgg. seen kóllëre yàgg seen diggante yàgg te sëy des fois dina bëgg tas mais dangay am fooy xam fooy xool. di nga xool ñii ko jur. parce que ñi ko jur mën nañoo am mën ngaa am kerse ci ñoom. Mhm. ba tax na sëy boobu du tas. yow xale bu jigéen bi man ngaa am kerse si yaay mu si yaay waa ji man ngaa am kerse si yaayam yow it war ngaa mën ngaa am kerse na sëy bii ma jóge senegal kii defal ma lu ne utal ma liggéey utal ma lépp ma koy tas no loolu di am mhm. kon nag bisimilah voilà mu mel ni am na koo xam ne moom it mu ngi ci ligne bi euh, du mm. kenn kudul euh, Ndoya Samb moom it euh, mu ngi depuis Italie Ndoya bu fekkee ni rek mu ngi ñuy dégg ñu daal di koy jël directement moom it mu daal di indi xalaatam ci li nga xamante ne moo di thème tey bi thème bu am solo la macha allah bu fekkee ne mu ngi ñuy déglu mu ñuy dégg rek ñu daal di koy dugal directement moom Ndoya Samb voilà allo Ndoya allo voilà mu mel ni moom dooy euh, duggagul waaye tamit euh, yaay booy euh, dañuy daal di jàll ndax sama ndijaay wax na ko léegi léegi. Mhm. moo di ñàkk ngor waaye tamit mbëggeel ci la lalu. Mhm. ki nga xamante ne bëgguloo ko. Mhm. naka ngay deme di sëyal ak moom ba sax mu lay déplacé di la yóbbu ba Europe. waa xam nga en général luy indi loolu. gis nga jigéen moo mën a téye mu dëgër mais bu fekkent ni jigéen nee na la ba ma rek ba ko ndax bu màttee rek day dagg. jigéen jigéen jigéen ndax góor des fois da ngay bàyyi say jur xel nga dem tukki ji di daan sa doole ngay ñëw. Mhm. ku mel ni man ne la sama doomu xarit bii ak a baax dañu dégg la yaayam bu doon sama sago di nga jël ko soxna. Mhm. wala sa doomu nijaay ji. bu doon sama sago nga jël ko sa doomu bàjjen bi loolu day defar mbokk sax boo ci amee lii nangam ma fekk yow ku jigéen ka nga koy utal nobbu ko santiru ko mhm. mu ngi woon ci leneen di dund dundam mu neexoon lool mhm. këli jóge Europe ak ay millions yow ci sa bopp yow yaay ji yow mi nga xamante ni yaay alikale ji war a noppal ku noppal sa doom mhm. yow yaa koy tànnal soxna yaa ngi comprendre dëgg mu dugg ci ba ndox si baat nag war yooyu daal di ñëw ku jigéen ki dafa war ko góor gi waaye bu nu xoolee sëy boobu ba ca biir mhm. tànnalu ko boppam yooyu mooy indi yooyu yow ki nga génnal ay at mbaa boog ay weer mbaa yaa xam takk ko mu nga bëgg ko mu bëgg la du ngeen dem ba Europe mu di la or en général waay juram moo ko tànnal jooja jabar mhm. moo tax mu dem ba fa mu dem def ko nam ko def mhm. surtout loolu euh, Ndiaye Diatta bëri na ñoo xam ne euh, jamono ji bu fekkee ni takk nañ seen yaay moo tax ñu féetee file ci Europe wala sax mu am koo xamante ne dañ leen di présenter ndax loolu tamit yoon la. mais loolu du yoon mais ni mooy ni ma commencé rek. parce que nee naa sànq euh, nit soo koy jël day fekk yow nga bëgg. Mm-hmm. xale bu jigéen bi tamit buy dugg ci.